Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. salaamaaleykum gars yi ñu ngi siyaar ñëpp di euh, di di masaw tamit sunu yenn partisans yi nga xamante ne nii ñoo bokk liggéey bi mosuñu waxee nii ndax saa su nañ koy teg ci yar ak dal ak teggin mais li am tey dafa ñaaw te dañoo metti lool sax. parce que dañu tooñ wax dëgg yàlla ndax nit ki nga xamante ne nii taxal nga ko ci benn dossier ba ba léegi nga di ko woo mu nekkoon ci ay euh, mu nekkoon ci droit wam ba tax na mënul woon ñëw nga lalli mbalaanu kiiraayam ngir bëgg mu uyu la nit ki nag bi nga demee ba mayetoo ko droit boobu noonu mu ñëw di la uyu ba ko mu jaar fa mu neex fi ko neex mu jaar fa ñëw uyu si la lijjanti li ngay lijjanti ak moom mais defuñu ko lu dul téye ko fa pendant trois heures de temps nan kan fii ngay jaar ak fii nga dul jaar ba jékki saay ñëw daal di ne ko maanaam da nga da nga da nga troubler public bi waaw daal di koy jël mënate yóbbu toroxal ko ci kilifa loolu du dëgg te dafa ñaaw képp ki nga xamante ne nag militant Pastef nga ñu ngi lay woo ci xeex bi ndax ñun ñu bàyyi ñun ñëpp bu ñu dee tëj sax bëgg nañ mais sunu leader. bii ñu tooñ da nga xamante ni moom moo ñu jaral saa su nekk ñuy xeex subaax ngoon ñun jug xeexal ko ñun ñëpp jaa ngeen jëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéo